benn force la am mooy la vérité la vérité dëgg kenn ko moom muy yàlla subhaanahu wa taala suñu borom keneen moomu ko ci àdduna maanaam nee nga damay def ay révélation yu grandiose yuy def suscité si toile bi mais révélation yi su dee dëgg la ret mooy force bi kenn moo ko moom yàlla tubaab moo wax loolu yàlla ne bàyyi julli moo gën bàyyi fen tey mën nga julli yow ba pare ba nga di fen te yàlla neen nga bàyyil ma julli moo ma gënal ngay fen kon dama sukkandiku ci yàlla muy la vérité tubaab moo créé toute vérité n'est pas bonne à man ci yàlla laa sukkandiku lu mu wax dëgg rek koy mujj seule la vérité triomphe donc vérité boobu may wax force bi yàlla moo koy indi teg ko ci man c'est Dieu qui me donne cette force c'est Dieu qui me protège c'est Dieu qui m'entoure c'est toujours j'existe GPS malgré tout ce qu'on peut dire malgré tout ce qu'on peut euh, révéler je reste toujours la même personne mën naa toog dix ans du ma def média mais le nom de Tange existera sur toutes les langues nit mën na def média toog un mois defatu ko dootoo ko dégg et Tange on l'entend toujours donc lii sama force mooy la vérité la constance et la cohérence dama toog fan yële am benn ministre conseiller bu ma woo wër sama numéro ba woo c'est des gens qui nous connaissent depuis très longtemps nag parce que ku ci nekk day naan yàgg naa la suivre depuis Sen TV 2012 quand tu faisais ba malgré tout mais Tange est nga lan moo ma constance li nga waxoon 2010 moom ngay dellu si waat en 2020 suñ la woowoon 2030 moom ngay wax la cohérence moo naam mooy say propos toujours du changer donc ce qui montre ce que j'ai dit dafa am base am fondement am fu mu tegu tegu ci ay charte du lu ñu inventé du lu may wax pour xool li la neex man tey su may wax dara pour xool yow li la neex du ma wax dëgg ndaxte ci la may wax am na loo xamante ni du la ci neex dama koy setti teg ko fële am na koo xamante ni mi ngi wax tey may ma rek mi ngi wax tey mi ngi posé wu ci boppam que li may wax nii su ma ko waxee est-ce que du métti kële est-ce que du neex ki je calcule pas ça je dis ce que j'ai à dire yàlla moo xam lii dëgg moom mooy àtte neex na la xayrun naqadi na la xayrun c'est ton problème c'est toi à gérer sama domaine mooy lan j'ai pris de choisir un métier qui est les médias Le policier a choisi quoi de porter le tenue le juge a choisi quel métier de rester sur un tribunal et de juger te yàlla rek a war a atte te juge bi chaque jour mu juum si lu muy atte parce que xelam ak xalaatam rek lay atte mécanicien bi moo choisir defar oto machin bi moo choisir yegg ci safo pour daanu man ma choisir pour wax donc lu wax boobu laaj moom lay joxe muy laaj dëgg la vérité. choisir pour wax certes.